Merci de nous avoir reçus, chers amis internautes de Témoin, et bienvenue dans votre émission Le Témoin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Talibou Aïdara, journaliste, agriculteur, politique, responsable politique de la l'APR dans la commune de l'arrondissement de Kataba. monsieur Talibou di leen fàttali aussi tamit mu ngi bokk ci cellule de communication au niveau du ministère de la pes tey moom la ñu fas yéene waxtaan ak moom ci jaar-jaaram waaye rawatina tey aussi mu présenté ñu benn livre bi nga xamante ne indi na ko donc livre bi mu ngi tudd par devoir civique et militant dina ñëw ci livre bi laataa ñu ci xuus dañu koy présenté baay mu nuyoog télé internautes yi bu ko defee ñu wax dugg ci waxtaan bi monsieur Talibou asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu man it di leen di leen gërëm si invitation yi di nuyu. téléspectateurs yi internautes euh, yu témoin TV di leen félicité si si si initiative bi ndaxte euh, jamono yu ñu toll nii boo ko defee ni ñaa ngi koy def boo ko deful ni ñaa ngi koy def mooy investir dans le digital investir si net bi loolu mooy lu nga xam ne moom mooy avenir donc boo leen nekkee ci anticipation bi foog naa gërëm leen sant leen man maay Talibouya Aidara communicant journaliste la comme ni nga ko waxee man maa bind téere bi bu tudd par devoir euh, civique et militant le Sénégal que je connais euh, j'ai travaillé après après journalisme bi liggéey naa ministère euh, de la pêche euh, si seen seen communication bi ay at tey maa ngi délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale mm-hmm. euh, comme conseil technique bu yore affaire administration mm-hmm. fala falaa nekk léegi délégation générale à la protection sociale e à la solidarité nationale mm-hmm. ok monsieur parcours bi riche na nga nekk journaliste Euh, nekk agriculteur ba pare nekk aussi responsable politique donc bind livre livre bi comme ni nga ko waxee sànq mais tey dafa dañuy doore ci actualité bi nga xamante ne xew na ci dëkk bi en tant que politicien responsable euh, politique de apper tey euh, fi situation dëkk bi toll sur le plan sur le plan social nga xam ne dëkk bi donc nit ñaa ngi rey bari nañu Euh, agression yi bari nañ te loolu li ko waral yëpp soci social société kii bi sociale bi la donc yan euh, kaddu ngay indi par rapport ak euh, loolu. waaw merci sama kàddu bu bu njëkk bi mooy kàddum njaal mm-hmm. Sénégal yëpp. Mm-hmm. ndaxte dafa am tiis bu am. Mm-hmm. neexul métti na. maa ngi njaal président de la république. di njaal famille yi di njaal sénégalais yëpp. ci li nga xam ne am na tiwawan waaye tamit am na Louga am na Nabi Choucair am na kawlax am na Linguère am na ci yeneen hôpitaux yi nga xam ne xam nañ ko wala xamuñu ko waaye tamit maa ngi ma saw ñu nga xam ne nekk nañu ay victimes ku mel ni ki Gaye ñu faat ko si bànneex ak ñeneen ak ñeneen mel ni ndaw si ñu faatoon Tambacounda ki sant Camara ak euh, ñeneen ñëpp dëgg yaa ngi wax problème violence violence doon na lu nga xam ne depuis quelque temps weer yi nii Sénégal ñu ngi dund situation bu nga xam ne war nañu pousse ñu taxaw xoolaat mm-hmm. marqué lu tubaab di naan un temps d'arrêt ñu taxaw xool lan moo xew problème fan lay soxee ndaxte situation bu amee rek il faut nga xool taxaw xool def jàngat bi def diagnostic bi bu baax soog a avancer waaye man foog naa feebar bi si kër yi la commencé si waajur yi ndaxte éducation bu njëkk première éducation bi si kër gi lañ koy jëlee. mooy éducation de base. mooy éducation de base sa papa ak sa yaay. lu ñu la yare noonu li ngay génnee ci biti. après nga dem si jardin d' enfants yi après nga dem si si école yi. maîtres yi ñu fa nekk jàngalekat yi ñoom dañ leen fa indi pour ñu jox la xam-xam. Mhm. indi la ñu indi ñu la si école. Mhm. pour ñu yor sa yar. ñun tam bu ñu nekkoon xale yi daan nañu dóor école waaye léegi kenn dóoratul kenn dóoratul école boo dóoree école élève waajuram mën na la yóbbu police mën na la yóbbu gendarmerie kon ñooñu léegi yaratuñu xale yi bàyyi nañ dóor donc ñoom lenn rek la ñu am da ngay ñëw lu nga xam ne loolu moo nekk ci programme bi loolu lañ lay jàngal ne la moo ngi nii éducation civique éducation histoire géo orthographe arithmétique loolu lañ lay jàngal boo paree nga dem sa kër. nag waajur yi il faut que ñu def seen liggéey. neexul yombul. waaye il faut que ñu def ndaxte ñoom ñooy responsable. ñun ay jullit lañu. ñii ay catholique lañ ñii ñeneen ñi mais diine yëpp responsabilité waajur wax nañ ko mais tamit boo xoolee suñu loi yi constitution yi kii yëpp dem nañ ba xool à partir de dix-huit ans ngay nekk nga nekk âge majeur. mooy ne de zéro be dix-huit ans say waajur dañu war a taxaw ci sa éducation amoo droit naam am nga ay droit mais am na lu nga xam ne mënoo ko def tànk amoo dix-huit ans mooy loolu mooy ne ñoom dañ la war a teg ci yoon ñoom boo defee lu baax ñu ne la lii baax na boo naree jeng ñu ne la lii waroo ko def waaye yow boo toogee yow sa bopp yaa ngi say waajur ñi def naka sudul noonu finalement situation bi day compliqué te tamit c'est vrai crise bi am na mais da ngay dem si ay quartiers yi nga xam ne sa pap boo ko gisee si suba peut-être dootoo ko gisaat bi si ëllëg si walla ñaari fan ndaxte mu ngi uti lu muy indi si kër gi te yaa ngi si environnement bu nga xam ne environnement bu environnement la bu nga xam ne peut yaa ngi ànd ak ay nit ñu nga xam ne ñoom si yeneen domaine la ñuy intervenir bu ma ne si yeneen domaine la ñuy intervenir dañuy ànd ak ñu nga xam ne ay samba booy lañu. Mm-hmm. Ah, wala say seenay waajur ay samba booy lañu. Mm-hmm. wala yeneen xeetu nit la ñi nga xam ne dañuy nekk si ay liggéey yi nga xam ne. Mm-hmm. yow xamoo ko. booy continuer di leen fréquenter di ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom di nga toll jamono yi nga xam ne lu ñu bëgg ngay bëgg. lu ñu def lañ la ñuy def fu ñuy jëm ngay ngay jëm te say waajur la plupart du temps duñ ko xam dañuy jékki-jékki rek ne leen seen doom diw def na lii def na lii def na lii ndaxte man dëkk naa dëkk naa pikin dëkk naa koñ bu nga xam ne am na ay jamono yu nga xam ne am na agresseur yu mag yu nga xam ne si biir Dakar si biir pikin dañ doon wax seen tour koñ boobu lañ dëkkoon te gis na influence yu ñu doon amoon ah. ñun si suñu koñ dañu nekkoon ay sécurité parce en sécurité parce que dañu euh, ñu ngi dund ak ñoom mm-hmm. ñun duñu xam ne ñoom ay agresseur lañ mais ñeneen ñooy xam ne mm-hmm. ay agresseur lañ mm-hmm. ñun dañuy dégg ñu naa ñuy naan kii diw agresseur la diw agresseur la diw agresseur la parce que fu ñu dëgg dugg foofu lañ koy defee feneen lañ koy defee soo soo soo soog a ñëw seen seen seen ay koñ te ñoom ay xale la ñuy yar ay doom la ñuy yore ay kii la ñuy yore tey ñoom ñëpp dañuy convertir nekk si si si situation yooyu. Mhm. donc euh, maa ngi interpellé mhm. parents yi ndaxte ñoom la ñu war a interpellé maa ngi interpellé parents yi pour ñu bàyyi seen xel si seen éducation doom di ñaan tamit enseignants yi. Mhm. enseignants yi ndaxte situation bi nu mu métti métti métti. enseignant jàngalekat da nga war a xam ne jàngalekat nga da nga war a xam ne xam-xam nga war a joxe da nga war a xam ne exemple nga war a nekk. xale bu la gis rek. war na jël si yow exemple bu baax war na la copier ne suba ni nii kii laa bëgg a mel ni li ay mhm. neexut bi neexul c'est vrai mhm. situation bi métti na mhm. mais grève yi bëri nañ grève yi bëri nañ grève yi la plupart du temps xale yi day jóge këram naan maa ngi dem école nga ñëw école fekk grève kooku fu mu dem waajuram xam xamul fu mu dem mhm. ñibbi na kër gi wala dem na si plage bi wala dem na feneen waajuram yi xamuñu ko dina toog ba heure wàcc jot mhm. ñëw ñeneen bu fekkee ne dañuy wax seenay waajur ne dañu am grève peut-être ñeneen ne duñ ko wax mhm. ah, xale boobu bu demee fan la dem yow xamoo ko yow enseignant bi nekk grève xamoo xale boobu fan la dem waajur yi xamuñu xale yooyu fan fan lañ dem te yooyu responsabilité bi il faut que ñu calculer ko c'est vrai métti na mais ñun ñëpp il faut que ñu nangu def sacrifice pour génération yuy ñëw pour suñu suñu réew. tant que defuñu loolu du ñu mën a dem. un sacrifice pour la génération future donc wax nga ko sànq mais dafa am ñenn ci askan bi dañu jàpp ne à cinquante wala à soixante pour cent yëpp fautif bi dañ ko teg état bi parce que tey boo gisee ni euh, insécurité bu bëri bi ñenn ñi dañu gis ne manque ñàkk liggéey xëy bi la ndaw ñi aussi ak dund gu cher gi ñu ci bëri aussi tamit dañu jàpp ne euh, yenn. yenn yenn droit yi nga xamante ne ni am na fii ci Sénégal donc permettre na léegi ñemetoo dóor sa doom ñemetoo dóor sa jabar comme ay droit de l'enfant soo dóoree sa doom gaañ ko yenn gaañ yi ñu bu ñu la yóbbee justice da ngay tëdd soo dóoree sa jabar bu la porter plainte da tëdd ba jot nañ ci gis ay sëriñu daara yoo xam ne ñu bëri jot nañ leen tëj ci ay e, e, mbir yu demee noonu donc est-ce que aussi tamit li askan bi wax euh, d'une part duñ am raison par rapport ak ak ak fait yi nga xam ne mu ngi am ci dëkk bi waaw xam nga état boo waxee état état kan mooy état état man la état yow la état kee la état ñë ñëpp la état du du naan rek euh, nguur gi la état bi société bi yëpp la bu ñu jëlee lépp rek naan Macky Sall mooy président de la république Macky sàll la loolu loolu Macky Sall sénégalais la bu nga xam ne moom moo mhm. nekk à la du Sénégal. mais état pour mu mun a dox nation pour mu mun a mun a dox il faut que ñëpp joxe seen. Mhm. seen seen contribution seen contribution. Mhm. situation économique. Mhm. depuis deux mille vingt. adduna dafa nekk si situation bu nga xam ne. ñëpp xam nañ ko. dafa am feebar bu am mu tudd coronavirus. bu nga xam ne secoué na économie adduna bi yëpp. amul benn réew bu nga xam ne échappé na. su situation boobu. naam métti na si si si Sénégal. Uh-huh. mais Sénégal jël na ay mesures yi nga xam ne réew yu bëre. Uh-huh. ñu ngi fii uh-huh. jëluñu mesures yooyu. ndaxte pour pour mesurer boo xoolee pour maitriser njëg jël na lu toll na six cent cinquante milliards bu nga xam ne subvention la. pour permettre ñu nga xam ne ndaxte commerçant yi ñoom ñoom ñooy dem jënd marchandise par exemple ceeb. dañuy dem Chine dañuy dem Inde dañuy dem kii jënd ko foofu mais ñoom fu ñuy dem noonu dañuy fekk prix yi jóg na bateau yi transporté yi yokk nañ seen seen seen seen seen tarif yi wala avion yi yóbbu yóbbu yóbbu yokk nañ seen seen tarif yi fu ñuy béy si tool yi usines yëpp carburant bi jóg na prix carburant bi jóge na du simple au au double si réew yëpp yokk nañ carburant bi mais Sénégal boo xoolee ñetti at si ginnaaw wala ñeenti at si ginnaaw prix bu bu ñu am si essence mooy six cent cinquante francs le litre moo fi nekk ba léegi te pourtant pétrole bi euh, carburant bi prix bi doublé na baril bi bu nekkoon soixante dix léegi mu ngi passé na cent cent cent cent cinquante euh, cent cinquante dollars te foog naa loolu effort la bu nga xam ne état bi mu ngi koy def population yi naam gisuñu ko parce que ñoom seen euh, seen seen amine bi day mhm. si loolu la ñuy calculer marché bi nu nu nu mu mel mais Sénégal bu bàyyee comme yeneen réew mhm. ñu nga xam ne dañu jékki-jékki dindi seen loxo si si si importation yi di appuyer commerçant yi di appuyer opérateurs yi mhm. peut-être que situation bi neneen nen neneen lay demee boo xoolee du ma sore sax Gambie fii nii Gambie bu nga xam ne moom mooy suñu voisin jàngalekat Gambie trente mille francs bu bëree bëri bëri ku nga xam ne mu ngi enseignement supérieur bu bëree kooku cinquante mille francs lay am salaire. enseignant yi enseignant. Mhm. léegi nga jël enseignant bu nga xam ne trente mille francs lay am salaire mhm. saaku ceeb mu ngi jar Gambie vingt et un mille francs te mhm. Sénégal saaku ceeb bi vingt mille francs lay lay jar kooku bu jëndee saaku ceeb vingt et mille francs ñaata mooy des si salaire am neuf mille francs si si si weer bi nga mu war a jënd mu mu war a fay bi jàng xale yu kon comparaison par rapport ak yeneen réew Afrique yi boo defee comparaison rek mënoo euh, comparer Sénégal ak yeneen réew réew Afrique parce que mesure yu Sénégal jël ak euh, salaire yu enseignant yu yu am ndaxte boo xoolee tey lu nga xam ne yokk nañ ko ci salaire enseignant yi moo ëpp salaire euh, enseignant yi yeneen réew muy muy muy muy Gambie muy Guinée Bissau muy Mali muy Mauritanie mii nii donc situation bi du du benn léegi nag réew dafa am situation fu nga xam ne économie dafa am lu ko yore ñett la dañuy naan secteur primaire secteur primaire mbay la càmm ji ak napp ji mooy secteur primaire nga am secteur secondaire secteur secondaire mooy industrie mooy secteur industrie nga am troisième secteur bu ñuy wax secteur service service par exemple télécom télécommunication yi ay yeneen yi ñoom ñoom ñoom ñooy secteur euh, léegi ñun Sénégal il faut que mu am longu étape bu nga xam ne ñu franchir ko ñu dugg ci mooy industrialisation il faut que Sénégal tey jamono yu ñu toll nii ñu avancé si si côté boobu pour mun a permettre jeunes yi ñu mun a am liggéey mhm. ndaxte industrialisation boobu moom mooy créer moom mooy créer liggéey bu amul pour am liggéey comme il sa doit comme nuñ ko buggee day day day métti waaye tamit jeunes yi tamit il faut que nag ñu xam ne il faut que ñu nangu liggéey nga jóg si suba sa papa jox la nga ndékki sa yaay jox la ndékki ñu bay la kër gi nga togg si bopp koñ bi di fa naan ataaya defoo benn effort génn naan naa dem uti liggéey naa dem seeti feneen wala fii wala fii peut-être dinaa am di dinaa am tuuti as tuuti lu ma mun a indi kër gi loolu boo boo ko kii da nga dem ba màgget doo mus doo doo mun a def dara doo mus a def dara parce que amoo euh, envie bi d'abord envie bi la il faut que nga am envie bi nga am jom bi ne man il faut que ma liggéey man mii di wax ak yéen si présentation bi wax am na lu li ma wax agriculture agriculture agriculture mais man damay jël vacances dem si tool yi mhm. pourtant mënoon naa toog rek mhm. mais mën naa dund si sama salaire mhm. sama njaboot mën naa leen dundal si si si sama sama salaire damay dem si tool yi am na benn jour dama dem dem dama dem si tool bi dafa am benn euh, paa bu ñëw toolam mu ngi taxaw mu ngi juste sama sama sama wetu tool mu ñëw taxaw ak man nuyu ma ñuy waxtaan mu ne ma dama kontaan trop mu ngi tudd Chamsidine Kandé mu ne ma dama kontaan trop te di la remercier mu ne ma xam nga lu tax ma kontaan di la remercier ma ne ko mu ne ma nga lu ngay def ni soxloo lii pour dund. mu ne ma li ngay def ni soxloo ko pour dund parce que am nga ko. yaa ngi liggéey. am nga lu nga xam ne weer bu dee am na lu nga xam ne mën nga si dundal sa njaboot. mais booy def nii lii exemple bu nga xam ne da ñun ngay won exemple ne nit il faut nga liggéey. mënoon nga jël sa congé dem feneen mais da nga ñëw sa congé ñëw jël sa congé ñëw si tool yi. Mhm. nga indi sa njaboot bi yéen ñëpp ngeen ñëw si tool bi pour pour liggéey. Mhm. mënoo loolu exemple la bu nga xam ne dañ ko war a véhiculer xale xale xale yi comprendre ko te mhm. bu may ñëw noonu di ñëw si tool yi xale dama leen di bàyyi si terrain yi ñuy football. Ah. mais sama waa kër sama doomi mag yi sama doomi rakk yi laay jël ne leen kaay leen ñu dem xaw ma ñeneen waaye yéen da ngeen ma topp si tool mhm. ñu di ñu ñu dem liggéey ñeneen moom c'est pas c'est c'est pas mon problème mhm. te foog naa loolu mooy loolu mooy lu nga xam ne war nañ ko def loolu mooy lu nga xam ne war na loolu moo war a nekk exemple loolu la ñu war a inculquer xale yi ñu comprendre ne kenn mënul liggéey si seen place te boo demee dans la vallée du fleuve Sénégal wala nga dem si ci vallée Anambé ci tooli soble yi ci tooli ceeb yi ci tooli pataate yi wala ci tooli tamaate yi ay jeunes sénégalais nga fay fekk ñu fay béy ñu fay liggéey si naaj bu tàng pour mun a dundal seen seen njaboot pour mun a am lu nga xam ne suba mun na leen mun na mun na mun na leen jëriñ foog naa mun nañ jël exemple si si si si si jeunes ñooñu mun a mun a léegi waaye boo toogee rek ok ah? euh, tout à l'heure tout à l'heure wax nga fi sànq ci Covid euh, ñu gis ne lépp wàll ci wàllu sante ñu gis ne Covid bi bi mu ñëwee euh, nga xam ne Sénégal géré na ko géré boo xamante ne ñëpp apprécier ko ci Afrique ñu jàpp ne ñu ñoo meilleure gestion te booba euh, Diouf saar moo ko yor mm. euh, li fi xew Tiwaawoon ñu koy masawu mooy lakk bi nga xam ne onze bébé bay xaw nañ cee ñàkk seen ñàkk nañ ci seen bakkan euh, président wàccee ko fal keneen ñenn ñi jàpp ne nag mbiru politique la parce que ñu ngi jub ci élection li ngeen li li muy bañ mooy nit ñi frustré wu à travers cet act nit ñi sanctionné ko comme ni mu demee woon ci affaire góor jigéen ñi yow ban réponse ngay indi par rapport ak loolu. waaw foog naa euh, man maa ngi maa ngi félicité Ablaye Diouf Sarr euh, si gestion Covid bi ndaxte Sénégal bokk na si réew yi nga xam ne gestion Covid tax na Sénégal am raaye si kanam réew yu bari mhm. à classement bu ñu ko jox noonu classement mondial. man boo xoolee si livre bi am na benn kii bu nga xam ne Washington Post. Mhm. ñëpp xam nañ ko journal bu nga xam ne Amérique la nekk. Mhm. lu mu bind presque foog naa lu muy jaay am na benn journal amul benn journal bu koy jaay États-Unis ñu koy naan Washington Post. Mhm. Washington Post moo mu soon a bind. ne dafa am réew bu nekk Afrique. bu tudd Sénégal. ñu ngi def exploit bu nga xam ne. américain États-Unis si boppam mënuñu ko def si gestion Covid. ci gestion Covid fekk jamono yooyu Sénégal day def test si 48 heures ngay jot sa. sa résultat sa résultat mais fekk période yooyu Amérique bu ñu defee test da ngay xaar une semaine après. fi ngay soog a am sa sa résultat. ñu magnifier loolu ne lu toll ni dëkk bu toll ne États-Unis puissance bu toll ne États-Unis mhm. ak seen moyen ak seen recherche ak kii Sénégal am ñaari jour pour defar joxe résultat Covid ñoom ñuy toog une semaine après di joxe résultat Covid ñu saluer loolu won àdduna ne am na réew mu nga xam ne ñu ngi def jéego yu mag si liggéey bi tax na tey xam nga ñu ngi dëgg cash transfert exceptionnel bu nga xam ne 43 milliards dañ ko war a jox population yi ñu nga xam ne ñu ñu ngi leen bind si téere bu tudd RNU registre national unique loolu ñu bëre ñu ngi wax mais xamuñu 43 milliards yooyu fan la jóge banque mondiale. ak réew yu nga xam ne Allemagne ak euh, Royaume-Uni ki ñoom ñoo appuyer Sénégal pour. seen politique so protection sociale parce que réew bu nekk da ngay am lu ñuy wax protection sociale da ngay jàppale sa néew néew ñu doole yi ñoom ñoo ko appuyer si gestion Covid bu baax bu Sénégal def looloo tax ñu appuyer ko génnul si budget Euh, Sénégal si appui la bu nga xam ne dañ ko def pour ñu jox ko population yi si gestion bu baax bu ñu defoon si coronavirus bi looloo taxoon ñu ñu appuyer leen mhm. si si loolu mhm. léegi nag am na lu nga xam ne am na mhm. foog naa enquête buñ koy def bu dara amee ñu war a def enquête lu toll ni fukk benn liir faat fenn laaj na enquête te gis nañ président de la république jox na mission inspection général d'État mooy bi nga xam ne moom moo gën a kawe si administration boo ko jëlee moom moo gën a kawe si structure yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si état pour ñu def ay enquête si situation Tivaouane waaye bu ñu yem si Tivaouane si ki yeneen kii na nataal yëpp pour ñu def fa inspection ñu def fa enquête ñu mun ko jox rapport te enquête bu ñu koy def du ñu bàyyi kenn donc foog naa pour ñu mun a def enquête boo nekkee ministre peut-être dina am lu nga xam ne soxla nañ ko war nañ la ko enquête duñ duñ ko mun a def. Mm-hmm. te yow yaay kilifa bi yow yaay ministre bi. donc foog naa président def na lu mu war a def. Mm-hmm. Diouf Sarr ñu ngi koy remercier. Mm-hmm. nit ñi lu ñuy wax. ku nekk da nga ah sa ku nekk da nga libre da nga libre si sa commentaire. foog naa bu ñu ko mënoon a wa bu ñu ko bëggoon wàccee. war nañ ko wàccee yàgg na parce que perte na Dakar du tey. Mhm. perte na Dakar. Mhm. janvier la perte Dakar. Mhm. perte na Yoff euh, euh, euh, janvier. donc foog naa bu fekkee ne politique la jamono yooyu lañ ko waroon a wàccee. te foog naa si liste élection yu ñu dem nii. mu ngi si liste nationale bi. bu fekkee ne sanction la doon doon doon peut-être du du du bokk ci élection du bokk si si si élection yi foog naa loolu man dama bokk si structure bu ñuy wax cadre républicain te Diouf mooy suñu suñu suñu coordonnateur moom mooy suñu suñu suñu suñu coordonnateur waaye ñu war a def enquête mhm. il faut que ñu def seen enquête mhm. fii la ñu amoon en deux 2002 naufrage du bateau le Joola mhm. bu mu amee la première des choses bu ñu def mooy Ablaye Wade dafa wàcce ñaari ministre nga ñu nga xam ne ñoom ñooy intervenir directement si si kii bi mooy ministre des forces armées ñu koy naan ba Sambu ak ministre des des des des transports mhm. ñu koy naan Youssou Sakho mhm. mais ñoom ñaar ñëpp da leen wàcce mhm. ah. pour commission d'enquête bi mun a def liggéeyam foog naa lool mooy li nga xam ne président décision bu mu jël looloo looloo te bu ñu fat au delà si yooyu am na sénégalais yu ñu doon wax waruloon xaar sax ñu wàccee ko dafa waroon a démissionné mhm. kon won na ne mhm. nii buggoon nañ mu jógee fa pour ñu mën a def seen liggéey mhm. ok d'accord euh, ñu ñëw ci livre bi nga xamante ne ni bind nga ko euh, livre baa ngi nii yeneen koy gis gis ngeen ko yaa ngi def euh, sa tur ci kaw ay dara par devoir civique et militant le Sénégal que je donc nga def préface du président Macky Sall pourquoi préface le président Macky Sall. waaw maa ngi une occasion la pour ma remercier président de la république Macky Sall. Mhm. ndaxte moom moo ma préfacé livre bi. Mhm. Euh, préfacé livre bi mooy ne damaa bind téere bi. Mhm. moo ko bindee téere bi ba pare. ma jël téere bi yëpp. ma def lettre yónni ko. moom président de la République dama bind lettre. yónni ko ne ko man téere bi def naa ko. yow laa bëgg nga préfacel ma ko. mooy da ngay préfacé mooy da ngay xool téere bi. nga liir ko xool ko càmbar ko bu paree. yow yaay def résumé nga présenté livre bi. livre bi ma ñaan ko en tant que sénégalais nee naa ko man sénégalais laa comme yeneen seen man sama téere bi yow laa bëgg nga nga nga nga ma yónni courrier. Mhm. bu ma yónnee courrier bi. Mhm. mu jot ko mu jox ko ministre kase mu mhm. xam ne moom moo yore kii culturel bi mhm. kase woo ma ne ma président jot na mhm. sa livre bi sa manuscrit bi jot na ko ba pare léegi nangu na pour préfacer ko waaye il faut nga ñëw ñu toog waxtaan ndaxte comme président la sa livre bi balaa mu koy préfacer dafa am yu nga xam ne war na fa nekk dafa am yu nga xam ne waru fa nekk. Mhm. ndaxte président de la république lu mu préfacer rek. Mhm. mooy ne lépp lu fa nekk mhm. ànd na ci. d'accord donc looloo tax. am na yu nga xam ne bind naa ci yi nga xam ne laal na par exemple Gambie laal na Guinée-Bissau laal na Mauritanie laal na Mali. yooyu finalement dam leen ci mujj. mujjee retiré parce que mun na doon incident diplomatique. ok yaa ko génne wala président moo demandé à ce que. non man maa ko génne pour yombalal ko. liggéey bi li li li liggéey bi parce que mën na nekk. xam nga mhm. man journaliste la mhm. te journaliste buy buy bind. Mhm. lu mu xalaat loolu lay bind. loolu lay bind. Ah, lu mu xalaat lool loolu lay bind. waaye lépp lu nga xam ne bind naa ko si Sénégal. bàyyi naa ko ci biir laaluma ko. Mhm. laal naa lu ñuy wax mine anti personnel. Mhm. mine nii mooy lu nga xam ne ay bomb yu nga xam ne dañ ko dañ ko defar booy bo bu ñu nekkee si xeex. Mhm. diggante armée sénégalaise ak euh, MFDC si Casamance. gars yi si àll bi dañ koy suul pour armée bi bu leen bu leen di topp. wala auto armée di leen topp. bu ñu yéegee si seen kaw day kalaatee bu kalaatee rek ñooñu dañuy. soit da ngay dee wala sa tànk yi damm wala sa tànk yi dagg wala say loxo loxo dagg. ok bind naa si. Mhm. si miin yooyu yu nga xam ne day lor. Mhm. day gaañ day rey. Mhm. yàggul sax foog naa ñaar ñaari weer wala ñetti weer. effectivement am na si zone zone zone Sindian. am na xale yu góor yu nga xam ne dee nañ ci. bind naa ci yu nga xam ne. lu métti la lu muy def métti na si si Sénégal te ñun ñëpp ko war a xeex. bind naa tamit si fii zone de captage fii nii chaque jour yéen a ngi gis ndox bu nga xam ne moo fay dem. mooy rigole boobu ñuy wax. waaw si ciel ouvert zone de captage ciel ouvert amoon na ay jamono man bu mooy bind amoon na ay jamono am na ñu nga xam ne dañ doon def maraîchage foofu. dañ si doon bay ay salade ay naana ay ay tamaate ay kii di ko jaay si marché te si ndox boobu lañuy jël. pour arroser pour arroser ko population yi di ko jënd xamuñu. population yi jënd ñoom xamuñu li may jënd ni fan la fan la jóge ok donc mm-hmm. loolu mun na indi jàngoro yu bëri. Mm-hmm. ma bind si. Mm-hmm. pour attirer attention. autorité pour ñu xam ne lii il faut que ñu arrêté ko. balaa muy indi yeneen feebar. bind naa si problème bu nga xam ne frontière la nekk diggante Sénégal ak. Gambie si dëkk bu ñuy naan Touba tranquille Touba tranquille moo ngi si frontière bi beneen côté bi gambi la ñu koy naan Dar Salaam beneen côté bi Touba tranquille mm-hmm. mais dafa am problème diggante ñaari population yi mm-hmm. parce que waa Touba tranquille dañu ne waa gambi ñoo dugg Sénégal jël seen seeni suuf waa Gambie nee nañ waa Sénégal ñoo dugg si jël jël seen seen seen suuf mm-hmm. ba cantonnement armé cantonnement armée gambien nekk hmm. beneen côté bi cantonnement armée Sénégal nekk beneen beneen beneen côté bi ma def lettre ouverte bind ko hmm. attirer attention président de la république pour ñu jël disposition balaa problème di am comme lu amoon en 88 diggante Sénégal ak hmm. ak euh, ak Mauritanie Mauritanie donc suñu la suñu la déggee en résumé livre bi euh, livre bi lépp mu ngi tënku ci dénonciation non non du du seulement dénonciation du du seulement am na parti bu nga xam ne par exemple parti politique. parti politique la parti politique man mm-hmm. dama bokk ci parti. Mm-hmm. bu tudd APR. Mm-hmm. alliance pour la pour pour la république. da ngay nekk si politique dina am jamono yi nga xam ne. ni nga toll jamono yi da ngay jël prise de position. effectivement. donc yooyu. samay prise de position ñu ngi ñu ngi si biir. par exemple am na am na benn prise de position benn intervention bu ma defoon. benn leader leader politique Ousmane Sonko. c' était en deux mille dix huit avant élection présidentielle yi. fekk nee na moom bu jëlee réew mi. lépp lu nga xam ne accord de pêche la. dina ko arrêté. ma xam ne kii lu muy wax. xamu ko bu ko xamoon du ko wax. ndaxte Sénégal moo soxla accord de pêche Sénégal mooy dem Mauritanie mhm. pour uti fa jën mhm. Sénégal mooy dem Gambie pour uti fa jën mhm. Sénégal mooy dem Guinée Bissau pour uti fa jën Sénégal mooy dem Libéria pour uti fa jën Sénégal mooy dem Cap-Vert pour uti fa jën ñooñu tey dañu bëgg a arrêter accord de pêche yi ak Sénégal oh, moom bu ne bu nekkee président de la république dina arrêté accord de pêche yi mais ñooñu dañuy yàkkamte pour mu arrêté accord de pêche yi parce que bu arrêté accord de pêche yi pêcheurs sénégalais yi nekk Mauritanie dañuy ñëw Sénégal yi nekk Cap dañuy ñibbisi yi nekk Gambie dañuy ñibbisi yi nekk Guinée Bissau Libéria ainsi de dinañ ñibbisi boobaa nag fan la leen dugal mm-hmm. parce que dafa xam dafa xamul mm-hmm. dafa foog ne rek accord de pêche da ngay jékki-jékki rek nga signé wala nga ngi da alors que procédure la. Mhm. ñu nga xam ne diggante réew ak réew la. Mhm. kon mhm. yooyu baax na nga. signalé ko par exemple. côté santé bi. xam nga côté santé bi. wax wax naa ko. côté napp ci wax naa ko. côté mbéy bi agriculture si vallée du fleuve Sénégal wax naa ko par exemple barrage Affiniam barrage Affiniam barrage la bu nga xam ne Sénégal ak Chine. ñoom ñoo ko tënkoon ba chinois yi commencé construire construire nañ barrage bi presque pare nañ ñu commencé inauguré barrage bi commencé kii rek relation diplomatique Sénégal ak Chine dagg en 1996 fekk Abdou Diouf moo décidé reconnaître Taïwan bu mu reconnaître Taïwan chinois chinois yi dagg seen relation bu ñu daggee seen relation barrage Affiniam bi lépp lu ñu fa kii ñu ñu ñu dindi ko dem barrage bi bloqué au lieu que mu indi coppute si mbéy population yi beneen problème la leen indi ndaxte lu ñuy wax acidification du l'eau ndox bi day day day saf euh, genre limon ak euh, salinisation day am day day tam day am tamit xorom ñoom seen tool yëpp seen faro yi seen rizières yi loolu moo ci am finalement mënuñu woon béy même jën mënuñu am jën jën jën bu baax il a euh, bu Macky Sall ñëwee président Chine ñëw fii Xi Jinping mu négocier ak Xi Jinping ba Xi Jinping accepté ñu signer accord pour chinois yi reprendre euh, barrage boobu defaraat nañ ko léegi barrage baa ngi baa ngi dox. donc je pense yooyu yëpp rafet na sénégalais xam ko. rafet na adduna adduna xam ko. Mm-hmm. c'est c'est des relations diplomatiques. Mm-hmm. mais aussi day day day day day développer agriculture. Mm-hmm. wax naa ci tamit ak nga xam ne. xale yëpp presque xam nañ ko. ndaxte presque xale yëpp liir nañ sous l'orage. ñëpp xam nañ Seydou Badiane Kouyaté. waxtaan naa si ak sama waxtaan ak Seydou Badiane Badiane Kouyaté. moo ngi si biir waxtaan tamit ak Bara Diouf. yow journaliste nga. Bara mooy ku nga xam ne moom moo créé agence de presse sénégalaise. bu ñuy am juste indépendance. moom moo créer Soleil. moom moo lancé la la lancé Soleil. mu nga xam ne nekk na si journaliste yu gën a mag. Afrique si journaliste yu gën a mag dans dans le monde nekkoon na xaritu président Senghor ak lépp donc yàlla def si samay liggéey liggéey journaliste mu am jamono yi nga xam ne liggéey naa ak moom xam naa ko wax na ma lu bëri expliqué expliqué na ma lu bëri si euh, Sénégal mhm. donc bind naa si moom tamit si culture bi tamit bind naa si Sembène Ousmane mhm. Sembène Ousmane Ousmane son mhm. dernier voyage le dernier voyage de de de Sembène Ousmane. donc euh, am na yeneen yeneen yeneen donc euh, foog na lii mooy premier mun naa wax tome un. parce que am na yeneen yu yu nga xam ne maa ngi maa ngi. liggéey si yeneen yi nga xam ne dinañ dinañ génn mais lii mooy premier tome. ok d' accord ami cher ami internaute di leen fàttali ni ki ñu invité mooy ay dara donc euh, journaliste la culti cultivateur la bon politicien la. Euh, ballon euh, mais écrivain la aussi mais tey ñëpp xam nañu ne bind livre ni mu méttee temps bi ngay jël en tant que journaliste nekkoon nga fi communicant aussi tamit bokk ci cellule de communication bu au niveau du ministère de la pêche donc temps boobu yëpp nga doon def pour bind livre bi donc naka la demee woon. waaw c'est vrai que ak recherche yi nga xam ne yaa ngi ko doon def. c'est vrai que bind bind neexul. Mhm. parce que temps temps la laaj. Mhm. Euh, temps pour yow sa bopp. Mhm. mais aussi. pour ñu ngay ñu ngay àndal sa famille et et tout mm-hmm. parfois damay damay toog sama kër mm-hmm. ay une heure du matin minuit une heure du matin deux heures du matin ma nekk si sama kanam machine mm-hmm. di bind parfois sama soxna du ko neex parce que livre bu mu bu mu génnee loolu laa ko wax ma ne ko sa kaas yi nga doon kaas yëpp livre baa ngi nii tey tey génn nga génn génn na xam nga li ma doon def li ma li ma ma doon def naam xam nga bu baax parce que maa ngi toog si sama machine di bind. Mhm. mais parfois day day classe nekk si machine bi rek nekk si. effectivement effectivement ça demande un sacrifice. un sacrifice c'est pas c'est pas du tout facile. Mhm. maa ngi koy remercier di ko di ko gërëm ndaxte compréhension la. Mhm. compréhension bu amul dara mënul. sur le plan financier. sur le plan financière je financer financé personnellement. j'ai payé. l'imprimerie, c'est-à-dire la maison d'édition, l'Armatan. Mm -hmm. J'ai payé pour, pour l'édition mm -hmm. et je l'ai payé à 1 400 000. Pour, pour, combien euh, d'exemplaires pour, pour, pour l'édition, parce que mhm. c'est 150 exemplaires. exemplaires 150 exemples. Mais aujourd'hui, le livre est dans toutes les librairies du monde. Okay. Et je pense que c'est ça qui est C'est ça qui est, qui est important. C'est dans toutes les librairies du monde. Mm -hmm. J'ai un ami qui, qui, a vu le livre, euh, la, pub, la, publicité dans, dans, dans l'aide. Il m'a contacté. Mhm. Il m'a dit où est-ce que je peux avoir. Mm -hmm. Je lui ai dit il faut contacter Amazon. Ça, c'est euh, à Cincinnati, aux États-Unis. Okay, États ouais. il, il m'a dit OK. le soir, il m'a appelé, il m'a montré le livre, il m'a dit à la librairie Cincinnati, finalement j'ai okay. j'ai eu le livre. Okay. Donc je crois c'est OK, kon livre bi aussi c'est en ngi ci digital Di, pas encore dans pas le digital parce que c'est l'harmattan qui pas, on me demande parce qu'en fait euh, en Afrique l'Afrique est victime de de quelque chose la quelque vente des livres dans dans dans le net mm. ça ça prospère ça prospère pas beaucoup mhm. mais également mhm. Euh, si tu le fais, il y a des gens qui achètent et puis ils vont multiplier ça, ils, vont imprimer ça, multiplier ça et vendre ça partout dans les rues de, de Dakar. Mm-hmm. Et finalement, l'auteur ne, ne, gagnera rien du tout okay. et la maison d'édition également ne gagnera rien du tout. Surtout que okay. dans la vente de, de livres, euh, ça nourrit pas son nom. Ça, là, là c'est déjà euh, les, les, les écrivains le savent. Okay. Euh, ceux qui écrivent, ils le font pour devoir de mémoire, pour la postérité. Mais pour le moment, en Afrique, euh, pour être best-seller, mhm. il faut vraiment entrer dans des sujets parfois, des sujets à polémique. Et parfois, mhm. ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Et tu risques d'être rattrapé par, par ton passé. Je ne souhaite pas okay. être... Euh, un écrivain un journaliste rattrapé par euh, par son passé par de fausses informations. Mm-hmm. donc livre baa ngi nii auteur euh, ay dara gis ngeen ko livre baa ngi nii euh, par devoir civique et militant. le Sénégal que je connais tey livre bi su fekkee ne nit bëgg na ko fan la koy mën a amee. waaw livre bi am na librairie L'Harmattan. mu mm-hmm. nekk si Védane bi mais am na tamit Quatre Vents. Mm-hmm. je pense am na si yeneen librairie yi tamit mais am na L'Harmattan am na Quatre Vents. ok est-ce que yaa ngi envisager pour participer ci ay euh, ci ay festival livre waaw d'abord damay maa ngi préparer séance de dédicace bi te xam na incha allah dinaa leen invité si séance de de de dédicace bi. ki préface livre bi kooku laa bëgg mu mu présider. séance euh, séance de dédicace bi looloo tax mu am euh, mu am retard bi. Mm. mais sinon. récemment la maison d'édition L'Harmattan mu ngi woon euh, Côte d'Ivoire sur euh, festival euh, du livre salon international du livre. Mhm. livre bi mu ngi woon mu ngi foofu. donc présenté woon nañ ko foofu présenté woon nañ ko présenté woon nañ ko foofu man dew ma mais présenté woon nañ ko foofu quoi. donc am na yeneen. rencontre yi nga xam ne mais maa ngi prévoir séance de dédicace bi d' soo ko defee invité ñu ñu ñëw jël ko bon merci ami internaute euh, ñu ngi leen di ziar di kontaan bu baax euh, à la présentation Souleymane la ci man bi yaa Yacine Cheikh euh, et di jeso bon. ñu ngi am mbégte bu baax donc ci taxaw bi ngeen ñu taxaw en tant que technicien donc sur le plan technique donc jaar na yoon ñu ngi am mbégte bu baax a baax euh, à mes côtés du leen ko duma leen ko du leen ko présenté parce que dégg ngeen émission bi ay dara di journaliste ba pare nekk baykat aussi euh, nekk écrivain bind livre bi di gis ngeen ko livre bu am njëriñ la parce que lim ci wax bari na sur euh, le côté social donc ak ci secteur pêche bi xam naa ni lébu yi sama mbokk lébu yi dinañ ci gën a mën a visiter pour gën a mën a xool njëriñ bi nga xamante ne am na fi. aussi tamit ci li nga xamante ne nii donc génne na ko ay ay alerte yi nga xam ne def na ko ci frontière bi ci zone sud bi et tout ça donc lu am njëriñ la livre baa ngi nii donc quant à moi di bàyyi maa ngi leen di bàyyi ak monsieur Talibou comme ça mu def dernier mot euh, ñu boucler donc ba beneen yoon merci beaucoup. merci man maa leen di remercier di. di leen gërëm di leen sant comme ni ma ko waxee euh, man journaliste la xam naa luy liggéey journaliste xam naa li ci nekk xam naa li ci neex xam naa lu ci naxari xam naa neexul waaye nit boo ko bëggee rek loo bëgg rek di ko mën a def dugg naa si biir Sénégal fépp si biir Sénégal euh, toog naa ak ay chef d'état toog naa ak ay dof interviewé naa ay ay dof toog naa ay sëriñ ay béykat ay nappkat ay sàmmkat si sama liggéey journalisme te foog naa tey loolu moo ma permettre pour ma mun a bind livre bi ndaxte euh, am na yu nga xam ne jéego yi nga xam ne boo ko defee si sa si sa dund loo gis rek di si am compréhension parce que jaar nga ci ba pare gis nga ko ba pare donc maa ngi ñaax sama rakk yi maa ngi ñaax sama sama jarbaat yi pour ñu góor góorgóorlu di liir surtout lecture amul benn secret secret bi lenn la mooy lecture nañu liir képp kuy liir suba mën nga nekk lu la neex parce que dalay jox culture générale dalay jox compréhension àdduna dalay may sages donc maa ngi leen di gërëm di leen sant